jumaay poroxaan ji ginnaaw bi liggéey bi matee tey jii nag ci talaata ji mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nekk ci daayira yi ak mboolem dëkk yi nga xam ne ñoo wër poroxaan ñu ñëw ci jumaa ji ngir sëkk ko dindi xeer yi ak mboolem esplanade bi nga xam ne moo wër jumaa ji ba lépp mën a maase. tey dañoo xëyoon maanaam ci mbirum mbale mi defar ratu bay li wër jumaa ji ak tegu jumaa ji yëpp dëkk bi maanaam dañoo maasaw daal lépp loo xam ne daal lu takk-takk la ci biir jumaa ji wala ci biti. sa borom dogal mbooloo mi génn nañ ak Pastef ci ndigal Sëñ taxa euh, ñu bale ko ratu ko sëkk defar lépp. Euh, sant yàlla bu baax euh, ci ndigalul sëriñ bi rek fas yéene liggéeyal sëriñ Touba ci ndamul soxna jaare li ñu teewe ko comme ni joxee ndigal yi rek ci ay bay ak rado ak satal ko bañ mën fee teeru gan bañ mën a julli ni mu waree loolu moo waral suñ teewaay. fas yéene ànd liggéeyal soxna jaare rek ànd ak suñu jëwriñ si Cheikh Asfal ñi nga xam ne mooy jëwriñu fédération Porokhane bi yëpp ñun na yàlla daa dogal ñuy liggéey ci xidmatu soxna jaara doon fa deuxième jëwriñ sëñ Cheikh doon suñu jëwriñ ci fédération bi woote woon na fa bëgg ñu ànd àndandoo moom ci liggéey soxna jaara bi waaw bale buub sëkk defaraat lépp rek luñ war a defar loolu la sëñ bi santaane woon waaw waaw sant rek alhamdulilah ñu ngi tàmbalis bisimilahi rahmaani rahim te seeni koo eggale ci alhamdulilah borom poroxaan ndax moo waral lii yëpp ñuy ñaan di ko fekkee ay déwén yu baree bëri sant nañ nag bu wér a ndax liggéey bu mel nii ci poroxaan soxna jaara jagleel ñu ko amuñu fayam di sant sëriñ tuubaa ndax soxna jaara mooy yaayu xaadim ñu ngi sant nag bu wér wér bañ doolee bañ doonee ay taalibe Serigne Bamba waaw kontaan nañ ci liggéey bi ñëpp a ngi góorgóorlu gis nga fii ni mu mel. ñëpp ñëw nañ ku ne bëgg a barkeelu. liggéey bi nag mboolem taalibe yi wuy si nañ ko kenn ku ne bëgg cee barkeelu waaye def liggéey bi ak Pastef. Ah, li ndigal la ah, liggéey Sëriñ Tuubaa moom jëfe rek ah, dañu sant yàlla mu ñu booleeg mu taxaa ba fekkee liggéey bi fa mu tàmbalee ba fi mu yem kon sant suñu borom tabaaraka wa taala baax baax dañaa ne képp ko xam ne fekk nga ko wala nga yëg ko yàlla na sa borom defal faju aajo àddina ak alaaxira barka Alaaji Fall xam nga murit moom moom ndigal rek la ñu déglu bu ndigal li ñëwee rek ñu fas na koo jafe ba pare dégluwaat rek leneen ndigal loolu moom loolu lañ fas yéene nekke waaw di ñaan Serigne tubaa comme ni ko Serigne Touba waxe ndax fa kullu man xat dama ne aw saara fa naaj ji wax firloo aw saara képp ku ma liggéey wala nga siyaara mi suñu borom jéggal say bàkkaar kon nag dañuy fas yéene daal ñun di liggéey Serigne tubaa rek ba faatu. sant rek ak am yokkute bu baax gën a am yokkute gën a xam gën a xam ni ñu sëñ defal gën koo fonk gën koo bëgg. ndax ñun buñ sañoon suñu maam buñ sañoon fu ñu toll liggéey Sëñ Tuubaa ci la ñu ne rawatina liggéey Soxna Jaara ndax ñun dañoo am chance su dëkkee Poroxaan kon moom bu ñu sañoon lu ñu def loolu ci liggéey Soxna Jaara lay bokk fi la ñuy tàmbalee nag te fi la ñuy yemit waaw. jamono bi nag naaj wi tàng na lool waaye mboolem taalibe yi yëguñ ko la ñu gis moo di ndigal li nga xam ne moom lañ leen jox ñu jëfee ko ànd ci xol bu neex. yëguñu ko tàngoori moom yëguñu ko ndax li ko waral mooy maanaam sëriñ bi ba mu ñu jëfalee xam ne doon tàngoor ak sedd dafa demoon rek di jëf lam noonu jëf na ñun ñoo tax kon ñun li ñu war rek mooy ñun ñu maanaam ñu jëfandikoo ko jëfandikoo gi nag ci lañ nekk nii. Euh, boo ci jubloo jubloo soxal na sedd ndax amul leen lu ci nekk lu dul njariñ njariñ àdduna ak alaaxira loolu moo ci nekk kon képp ko xam ne murid nga am nga Pastef tey liggéey ci liggéey bi def si kem kattan loo mag loo mënut mag ak ndaw góor a jigéen. sant yàlla bu baax di ci am mbégte bu baax a baax ci ndam lu r lii nga xam ne suñu ndam la. di ci sant yàlla bu baax bi ñu suñ borom taw fexalee taw fexalee ba nu fekkee ko ak jàmm di ci ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñ borom yàggal ko fi lool te wëral ko fa ci barkeb Serigne Touba barkeb Soxna Jaaratullaahi ak mboolem taalibe yi ñëpp rek. am solo lool sant nañ ci yàlla nag bu baax a baax ndax Porokhane moom ku fi mën a def rek loo fi waaye mën a def rek sëñ Moustapha Bassirou nga ko defal rawatina sëñ Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk tey di jëf jëf ju am solo ji mu jëf taxawal jumaa yi Porokhane ji ànd ceeg mboolem wàkk sëñ Tuubaa yi ñun nag lañ ko defal waaye ñun moom mënuñ leen fay liñ man rek mooy di ñaanal suñu doxaam mu gën fa yàgg loolu gën a jigéen ñi takk woon nañ lool ci liggéey bi wane ci ak Pastef te nanguwuñ benn yoon góor ñi mën leen ci. Ah, soxna yi ñun ay yaay faal lañ waa te soxna jaara moo waral bis bi kon soxna yi ñoo war a gën a takkaayu bañ baay faal yi yóbbu leen ko. setelaat li nga xam ne moo war jumaa ji ak sëkk bi laajoon na ay jumtukaay loole moo tax maire bu Poroxaan jàppale leen ci. ànd kook ñi nga xam ne ñoo di ay conseillers parce que ba mu ñëwee soxla woon nañ teel ak euh, kii ak yooyu yëpp yàlla daf na dimbale nañ ko ndax am na ay société tu fi nekk ñoo xam ne ba ñëwee sollicité leen abal lañ ñu seeni seen i peel seen kii seen seen camion seen yëpp loolu maire bi moom loolu moom dimbale nañu ko ñëw ba xam nga boo gisee na gis nga fi ay camion gis nga fi ay peel gis nga fi ay benn gis nga fi nit ñi ñoo ñëpp liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir moom la def ci bërëbu sell bi di poroxaan di jumaa ju mucc ayib ji nekk na lool maire bu poroxaan fësal na ci ak mbégteem ñaanalaat Serigne Mountakha Mbacké Bachir. yëg yëg gu ma mel daal lu dul di santaat xaadimu rasool ak maam jaare mii xam ne moom mu ngi fi tëdd di sant suñu di wax jërëjëf sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général poroxaan avant muy doon xalif général Mouride ne lii ñu defal képp ku dëkk Porokhane neex na la waxantuma la man man mais aujourd'hui daal lu tubaab di wax je suis un maire comblé waaw. ubbiteeg jumaa ji nga xam ne nag sëriñ bi wootewu ko ndax jamono ji nga xam ne moom lañ nekk teewul daañu jël ay matuwaay ngir sàmmoon sàmmonteeg mbooleem norme yi nga xam ne moom la waa kër docteur wax loolee mairie bu Porokhane ñu ngi ciy liggéey. dañoo jël suñ comité boo xam ne bët bu set heure bu nekk dañuy waxtaan di xool nan la ñuy def pour moytu mbas mi tey comité boobu dajee nañu démb ba am nay conclusion yu am solo yoo xam ne jébbal nañ ko sëñ bi ba ñu ngi si. wax ne daal lépp kiyal nañ ko bu soobee yàlla bu bis ba xam nga bi da koo yëgal nit ñi mais woowul leen. kon moom bu ñu lu ñu nit def loolu ci jaar lay bokk fi la ñuy tàmbalee la ñuy yemit waaw. taalibi Serigne Touba yi nii koy jàppoo fépp foo xam ne jox nañ leen fa ndigal dañ koy jëfee te kenn du nangu sa morom mën la ci nii lañ koy jàppoo te duñ bàyyi benn yoon tànk que liggéey bi matul.